Euh, bok Senegal, Sénégal alaikum Bok région de Diourbel Euh, ngi Touba yëpp ak département Mbacké mais di tàmbalee suma nuyoo ci suñu kilifa suñu sëñ sëñ Mountakha Cheikh Mohamed Bachir Khadimou Rassoul euh, porte parole ak

mooy ci chantier bi gën a mag muy autoroute Ila Touba mu def ko ci temps bu gàtt defu ko yéene defar ko ci baaxaay goo xam ne baax na ko sëriñ bi war koo ànd ak moom inauguré ko suba loolu mooy sensu taxaw bi ñu taxaw fii ñu ciy sant yàlla di ci sant président de la république mais di ci sant gouvernement mais di ci sant sénégalais boo xam ne bii li nga xam ne président de la république def na ko neex na la te bëggee nga ko te xam nga ne njëriñu Sénégal loolu daal mooy sens bi parce que président Macky Sall euh, escore bi mu def bien que Touba dafa jafe fait. en 2012 37 803 voix en premier tour en 60 000 voix deuxième tour boobu Ablaye Wade dafa ne xëpp fi milliards yu bëree bëree Bobo opposition la bo xamni bi amuñu ben Mais 60 000 personnes yu dëkk ci Touba moy escort cumulé Le président Macky Sall am té gagné au premier tour ak deuxième tour am ko matam cumulé à peu près. dans 60 c'était autour de 67 000, 68 000. Biñu démé législative 2012 dañoo dóor PDS ba damm ko fii ci Touba nañ demaat ci résultat yi baat boobu dama bëgg aussi ngeen koy retirer ndax information bi gën a bon mooy information boo xam ni waxul li am législative yi suñuy député lañ fal ñoom Galas Kaltoum dañoo gagné Touba tuuti lañ leen gañee ci Touba mais boo xoolee département bi razzia lañ ci def dañ leen cee dóor ba damm leen suñuy député falu problème am ñu perte élection locale loolu du ma ci dellusi xam ngeen li xew ndax bu ñu nee Cissé Lo dafa saaga surtout sëñ Touba ci biir campagne électorale te sunu waa parti def ko euh, muy un complot loolu mënul bañ a am conséquence kon boobu mënoo ko natt mënuñu woon a gën référendum doo ko teg ci parti bi parce que projet bi président de de tegoon diabolisation biñ ci def wax waxi diine ñi jógoon di campagne du ñu ab parti politique dañu wane woon ne président day xeex diine day xañ bay àddinaan église sax dañ ko def Touba donc yoy féké nga ko kon lolu bu leen ko ci compter kon ban élection lañ perte amul parce que élection législative amul woon lolu dama koy continuer wax barke Cheikh Ahmadou Bamba PDS gañewul élection législative dañoo sacc dañoo toj ay urne demal euh, Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire conseil constitutionnel dafa annuler élection localité localité yu japonais, yuñ une ne dañu sañ fi bu dé wa PDS ma di kenya and ak euh, Assane dem toj ay vote deux et quelques bureaux wuñu fi ñu ragaloon ñu daw fi ñu ragaloon dañ leen fay gagné suñu candidat nek fa ñu dem toj élection xam kaso dem ba ñu annuler résultat résultats looloo waroon am defuñu ko parce que président jàmm la bëgg mu bàyyi leen ñu jël cinq députés yooyu asaka la ko def mais kon bu ni dañoo gagné gagné amu fi lii wóor kay nañu dem bu dee danañ gagné ñoom bu élection yi ñëwee présidentielle daañu gagné buñ gagné wuñ nga xam ne gagné wuñu woon mais élection kay boo toogee Mor Lomé kaso lañ ko yóbbu te dañ koo sosal lañ wax dara du ci dëgg dañ kon jàpp parce que dañ doon defi balance ak leneen donc loolu vraiment bëgguma ñu ci wax ak waxaat waxi caaxaan la beneen man dama jàpp ne même bu ñu ñu pertoon élection yi ci kan nga koy teg Fatick ñaata lañ fa fal ay ministre ki directeur national ñaata lañu ñu fal Matam ay ministre directeur ak i PCA fii ñu am troisième électorat ñun ñoo am te boo boolee Fatick ak Matam élection bu département Mbacké ko dëkk demal nga xool ko

kenn nit daal man na fa ne yoroo fonds politique yoruma assemblée nationale yoruma budget te nit ñi ku ñëw dañ naan la jox ma fii bu ma fi duggee bala ma fay génn ñàkk 10 millions toujours nga ne dañoo war a gañ kan la ñuy laaj résultat bi kan kuy laaj nit ki résultat kay da koy jox moyen yow mat sëkk pour man ko nit jox ma résultat ñun leen man gëm Macky Sall ba ko kenn gëmu lañu man tey Touba bu ñuy ñëw politique ñi doon saaga Macky Sall bi ko xeex ñoom la ñuy jox moyen ñoom lañuy ñuy waxal moo fi am ñi doon xeex Macky Sall di ko saaga di ko tam tey moom lañuy jox mooy ñun xamuñu ci dara te bi mu mettee Macky Sall fu mu dugg maa ko fu dugal bi mettee man rek la gisoon laaj seeg Sadaga mag màggat jaxate ca Mbàkke ñun la gisoon amul keneen ñoo ko daan dal li ko fii la fii la fii la dëgg yàlla moo ko moom tey peut dañ ñu xeet

nous avons en 2007 mais bul élection 2001 deuxième suppléant là on ci liste vous nga alternance même dafa am Moussa premier suppléant donc 98 ak liste majoritaire parti majoritaire pour Massa am quatrième législature mais tu dis que même si je suis ci élection législative dañ président de la commission des infrastructures ak kon loolu bu amee ba pare ñu fal ma ñaari yoon président chambre de commerce 2004 ba léegi maa ngi falu maa yor chambre de commerce ci sama lolu loolu doyatul ñu yóbbu ma chambre régionale de l'UEMOA def ma fa trésorier ba ba ma fay jóg def naa ko 9 ans Serigne Mboum ñom ñom ma fa remplacé ma dem CEDEAO ñu jox ma vice président troisième vice président 3 ans def ma falma à l'unanimité président parlement CEDEAO man bu ma dee góor même bu ma bàyyi woon kenn njaboot war nañoo delloo njukkal waa Touba ak Mbacké ak gone yi ma doon jàppale ak njaboot gi moo tax bi ma bàyyee dootuma wotee fii ma sama njaboot bu leen tas maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw fii kenn mënu fee def dara génn ci sama njaboot c'est pas possible mënuñu ko parce que dañu am ancrage fii muy lu am solo muy Bassirou Mor Matar maam kenn ñoom euh, Fat Ndiaye ñoom madame madame Ndiaye ñoom ak moom i jaxate ñoom taxaw taxawaay bu mat sëkk ànd gone ñoom xaadim donc loolu ñuy def gëm-gëm la du affaire alal bu doon alal ñoom taxaw nañu mais dama ni leen bu ngeen di politique bu leen ko teg ci alal ndax man politique bi joxuma alal damaa dem di liggéey li may am laa ciy def li may def politique mënu ma ko jox Macky presque man naa ni maa moom at mi même tegantewuñu loxo gisuma ko sax mbaa bu ñu gisante gisante bu gàtt la maa ngi sama liggéey mi ngi ci liggéey sant naa ko parce que au moins biñu andé ba mu jël réew mi joxuma assemblée joxuma HCCT joxuma conseil économique social environnemental mais def na ma deuxième vice président jóge ci def ma premier vice président jappelé na ma it ba ma nekk président parlement CEDEAO mais li ma ci gën a neex mooy daa taal avion ñëw ba fekk samay nawle mu fekk si ma yendoog man wax ci man aw yu ma ñëw fii da woo fi samay nawle mu waxat ci man lu kon loolu mënu ko fay loolu rek bu yemoon foofu neex na moo tax mu nekk sama candidat ma créé nag suma mouvement horizon 2020 di jàppale président pour ñu gagné Dakar parce que Dakar mooy sama objectif 700000 électeurs a fa ne boo gagné woon fépp ñu massacré la Dakar da ngay perte réew donc foofu laa ne pour xeex ak ña fa ne pour président gagné ma xamal ko ni moom laa àndal moom laay jàppale moom laa bëgg mu gañi ndax li ma am ci moom mosuma ko am ci benn politicien loolu la yàlla dogal kon danaa ko ci sant te it samay nit sagal na leen am na ñu ci am dara mais doyul na dolli parce que ñun liggéey nañu lu jar ñu jox ñu lu toll ne li ñu jox ñeneen man loolu laa gën loolu laa gëm ndax mbooloo lañu àndal moo xam ne ci parti bi lañuy xëy di ci goon kenn mënu leen te ñu ci bëree bëri yor ñu benn responsabilité te am nañu ñu ci ñu mën a yore responsabilité

am naa fa ay connaissance ak ñoo xam dañ may déggal ak samay fans club nag xam dañu bari fi bari ci diaspora bi ma ngi leen di nuyu di leen wax Macky Sall dóor fat daan mais pourquoi lolou neex leen man ma dëkk Dakar de di bokk ci liste bi maire moy ki nga xam man na gagner ben collectivité locale en général

wàññiku yi ba pare li nga xam ne programme la nga baril ko def naa ko CEDEAO ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk di corps de contrôle yëpp gëm nañ ni sama liggéey liggéey bu set la bu sell la kon loolu laa bëgg ci mairie Dakar bu ma jotee soixante et quelques milliards yi danaa fexe ba xool priorité nit fexe ba ñoom ñu mën a euh, jot ci alal ji mu wàcc seen suuf te bañ koo di pàccoo

copier ay signature te loolu lu grave la lu baaxul ci suñu système démocratique homme politique bu dem bay laajub réew war na sérieux moo tax may féliciter Abdou may ndax il est courageux moom wër na mënta am parrainage wax na ko ba ne nanu nanu njol dente <laughs> parce que moom dafa honnête mënta am parrainage mais gars yenn yi yor xaalis xam dañoo sàccoon xaalisu askan bi nekk léegi opposant bi ñu ne gërëy ñu daw di raamal Macky Sall ba Macky Sall ba teg dossier boobu ci suuf dañoo génnee xaalis bi ñu rënkoon dem jënd ci ay parrainage loolu nag il faut que ñu xool ko bu baax a baax ndax bari na ñoo xam ne dañoo copier carte d'identité jàmbur yoo xam ne joxuñu leen ko te loolu ay sanction war na cee am bu ñu paree élection it war nañoo xoolaat système parrainage bi nan lañ koy xoolee ba lijjanti ko ndax loolu moom c'est extrêmement grave te lu am la Ila Touba kay moom lañ doon wër bi ñu amee Ila Touba kay li war murit yi li war euh, sénégalais yi mooy ñu xam ne Macky projet boobu dong bu doon moom la def jërul ñuy wax danañ xam ne yeneen a ngi ndax ku la yekkal ndékki lu neex dig la añ ak reer war ngaa gëm ne dina ñëw te pétrole baa ngi ñëw ak gaz bi kon Ila Touba rek li ma wax moom laa bind samay kii Ila Touba rek doy na

man li ma waroon mooy dañ ma sas accélérer processus d'intégration weesu naa accéléré parce que maa ngi fépp créé naa loo xam ne mission d'information de contrôle de sensibilisation communauté bi ñu ngi koy financer te gis nañ ne ci li ñu doxalagul loolu dara gënut dem ci frontières yi dem ci agence spécialisée yi ak institution CEDEAO yi di xool li ñuy def ba xam jaar na yoon wala jaarul yoon bu nu paree question sensible yi muy question migration yi question yoo xam ne mi ngi jëm ci emploi des jeunes yi question santé yi question euh, euh, hydrologie yi question agriculture yi ci lañuy ñuy waxtaan di ci def ay réunion délocalisée biñ ko dalé def ak léegi nit ñëpp ñu ngi remercier di ñu féliciter ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey kon loolu c'est tout à l'honneur du Sénégal tey ñi ma yor xam ne cent quinze députés la moyen Moustapha Cissé Lo li ñuy wax mooy est-ce que boo fi jógee keneen dana mën a def lu toll ni li nga def maa ngi koy ñaan parce que yóbbu parlement bi faut kenn reconnu par tout le monde ci trois ans yi ma nek parlement président de la république choix bi remercier assemblée nationale ak groupe parlementaire yi désigné chef de file bu euh, député yi ci parlement Je e ba ñoom ñu may ci liggéey bi ba ndam yi ñu ci am ndax ndam li du man rek ñoom ñëpp dañ ci indi seen xam-xam jàppale ma def ma kilifa ñuy liggéey en parfaite harmonie xam ne jàmm rek la ñu ànd ancien parlementaire yi ku mel ne Doudou Wade maa ngi koy sant parce que sama conseil spécial la dañuy discuter ci question yëpp di ci waxtaan mooy jox point yi nga xam ni yi war nañ ko éviter ak point yi nga xam ni yi moom la ñu war a jàpp liggéey boobu maa ngi ko ciy sant parce que loolu patriotisme la moo tax mu koy def bu ko neexoon mu ni ki yor parlement bi Euh, ab sénégalais la mais ñu parti mais dafa ma wax ni ma lepp lo xamné yaakar na né man na ko defal na ko wax mais ma ci jappalé kon je tiens à le dire devant tous les sénégalais que ma ngi sant di ko gërëm ci jàpp boobu may jàppale. comme niñ ko xamé wa tuddu gëna bir mo xamné mom bu jubé rek damay bir lolu mo ci am ndax dama bëgg sëñu sax fans club bu sëñ Saliou maay président fans club waaye dama koo doyloo yaakaar ko sëriñ Moustapha Bachir mooy sama sër defal na ma lu ne waaye sëriñ Saliou dafa ma jàppoon comme doom jàpp ma comme taalibe jàpp ma comme xarit moo tax bis buy ñëw damay bég li ma fa war a yóbbu fi mu toll ci daara yi jekk na ba pare euh, du ko lim ci télé bi mais suba 10 heures dana dem daaru Xudóos euh, daara jooju euh, ci xel koom sëriñ Cheikh nee na mën naa ko jox doo doo dongoom bu ñuy wax Lamine gi suba Lamine boobu bi dina ko yóbbu muy teraanga yoo xam ne daf fay jiitu ma doog a commencé cant gi ndax cant gi ñoom ñoo ko moom sant sëñ Saliou la moo tax ñoom laa ci jëkk a teral ci bis bi tey sàkku ñu ñaanal ma ñaanal sëñ Cheikh ñaanal sëñ Saliou ñaanal ma samay wayjur ñaanal ma sëñ Moussa Bachir Sy ak doon njabootu sëñ Touba gépp ak Cheikh si mu seexal mais ñun taalibe yëpp ñu dugg ci bis bi ndax bis bi jàpp naa ni la ma sëñ bi waxoon benn kaamil bu sell buñ jàng nañ ko war a jàngee def jàngi xasida defi bernde nen na ci fas ci bis boobu yàlla mën na la ko defal kon jàmm laay fas élection yi ñu jëm yàlla na ñu ci am jàmm bu ñu demee si sees maa ngi leen ci invité dinañ jàllalee li ñu war a jàll li ñu ëmb lépp ci bis boobu ndax le 4 danañ fa wàccee kaamil jàng fa alquran te ñi ngi jàngalu alquran ju bari diggante kokki ak daara yi nekk Touba ba Sarsara ba daar Daaru Musi léegi nag la 5 bi mooy bis boo xam ne bisu bernde rek la ku ñëw xew bu nu paree ci ngoon bi 4 heures ñu def suñu cérémonie balaa 6 heures ñëpp ñibbi maa ngi ci woowaa Touba ndax seen bis la di ci woo nag sama mbokk ak sama xarit yépp nekk ci biir Sénégal ak diaspora bi mais di ci woo président de la république xam ne moo ko doon président da daan ñëwal boppam

xam dañ may jàppale ci bis bi maa ngi leen di yëgal bis bi di leen ci woo kon daal lii mooy bis bi bis la bu am solo bisu sëriñ Touba la bisu sëñ Saliou la maa ngi ciy woo bu kenn woowuñ ma wala joxuñu ma ab lettre lettre mënta daj loo xam ne lii day jege ay ñaar fukki junni yi nit wala fanweeri junni ndax ñi ma seqal jàmm ak samay mbokk xajuñu ci ay lettre yu ay tur di leen leen kon mbokk yëpp waa Kër Mbaye Louga ñi nga xam ne ndaam la ñu bokk muy waa Kër Sëñ Buuba ñoom Momar Lo ñi nga xam ne ñi ak Omar Sénégal Lo association bi ak Alilo ñoo ko bokk ñoom yëpp woo naa ci bis tey ñaan ñëpp gis yi ku ci ñëw yàlla na yàlla faj say aajo ci barke Sëriñ Tuuba yàlla boo xiif yàlla boo rafle yàlla boo ñàkk xaalis foo toll yàlla na nekk mbégte ci yow ndax Tuuba moo aaye loolu Sëñ Muntaxa am nañ ci ndigal porte parole am ci ndigal sama si sëñ Moussa Nawel am ci ndigalal sëñ Cheikh mu sëñ Saliou kon mel na ne bis bi daal ñu ngi noonu ñëpp laa ci maa ngi naan ñëpp fekk ma Ndakaaru le 5 le 4 ak le 5 ñi mën a ñëw le 4 bi ñoom ñi mën a ñëw le 5 bi ci barke Xaadimu Rasuul allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam